présenté wu madame waxal. Khady Tall madame waaw présidente bi tey lancement bi. Euh, waaw ginnaaw bi ñu nuyoo nag ñi fi teew ñëpp muy euh, dëkkandoo yi ak xarit yi ak responsable yi fi ñëw yëpp euh, kilifa diine yi fi ñëw. muy dalee ko ci imam bi ak chef de quartier bi ginnaaw bi ñu leen gërëmee ba pare gërëm membre yi nga xam ne ñoo bokk ci mouvement bi tey li waraloon tey li ñuy def nii mooy dañoo liggéey presque un an et quelque ñu ne nañ taxaw ñu am taxaw seetlu taxaw seetlu bi nag mooy ñu xool li ñu liggéey ba xam fan lañ toll moo waraloon tey ñu ne dañuy woote pour lancer suñu mouvement parce que ay jigéen yu ànd lañ takku di liggéey euh, kon nag defe naa jot na suñu demee benn temps bu gàtt ñu liggéey ko ñu xool am taxaw seetlu ci li ñuy liggéey te wax dëgg yàlla euh, bi ñu amee taxaw seetlu gis nañ ne am na solo moo taxoon tey suñu teewaay bii loolu la. léegi yéen bu leen jógee ci lancement bi. nag jéego yi ñuy def mooy comme liñ nekkee woon rek mooy gën a takku rek liggéey parce que ñun liggéey rek lañ xam ñun ay jigéen lañ yoo xam ne amul kenn ci ñun koo xam ne rek da ngay xëy di tëdd sa kër ginnaaw bi nga xëyee toppatoo sa jëkkër ba pare ci ñi ci am jëkkër li ngay njëkk a def mooy sangu ba set julli dem daani doole suñu jógee ci lii dañuy xam ne ñun am na leneen lu chargé wu suñu kaw mooy gën a takkuwaat parce que gis nañ ne maanaam kër Mbay Fall yëpp ak li ko wër ñëw nañ wuy si ñu ak tëngeej maanaam li wër dëkk bi yëpp ñëw nañ wuy si ñu kon ñun dañoo war a gën a góor góorgóorluwaat gën a takku loolu lañuy def suñu jógee fii taxawaayu jigéen taxawaayu jigéen nag xam nga jigéen lépp moom la jigéen lépp moom la parce que ñun suñu suñu defee mouvement gunge jigéen mooy dañoo bëgg maanaam adduna bi yëpp sax laay wax duma wax Sénégal duma wax banlieue bi damay wax ñëpp ñoo àndandoo gunge ñu parce que ñun li ñuy def mooy jigéen bu ñàkk doole ñu fexe nga am loo jàpp ba taxaw pour dimbali sa njaboot rek loolu rek moo ñu tax a jóg mais leneen taxu ñoo jóg dimbali suñu njaboot ak suñu borom kër yi keese lool kese moo ñu tax a jóg kon nag defe loolu moom sa amee yéen góor ñi surtout yéen a ngi ñuy jàppale ñu bëgg mu gën a yokku na waaw yéen jafe-jafe ngeen am surtout am ay financement wala waaw financement yi moom dina xaw a jafe parce que booy xool tamit yenn saay bu fekkee bokkoo ci benn parti pour ñu financer la dafay xaw a jafe waaye macha allah ñi nga xam ne ñi ngi ci quartier bi ku mel ni Abdou Karim Sall léegi gis nga fi la jógee muy nit ku baax ñëw na jàppale parce que bi mu yëgee li ñu yëngu rek xolam sedd na mu ñëw jàppale ñu jàppale bu am solo nag kon defe naa amaguñu ay financement waaye ñi ngi am ñu ñuy gunge mais financement yi moom wax dëgg yàlla amaguñ ko. waaw lan moo doon seen yitte nekk nii taxaw suñu kanam mooy fexe pour am financement yu am doole rek ba mën a gën a liggéey actuellement nii loolu rek moo taxaw parce que ñun xamuñu leen lu dul liggéey. xëy fajar guddee waaj loolu rek lañ xam suñu soxla bi gën a taxaw daal mooy ñu am ay financement te loolu foog naa nag première dame bëgg nañ mu jot ci ndax ñu ñii bëgg nañu ni ñu taxawee weex bés jot ñu ñëw jàkkaarloog moom weex loolu bëgg nañ ko merci